ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا بكي jullit yi ñuy seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yàlla dogal nañu dellu siyaat niñ ko aadowoo di defee fii ci tv stv fas yéene jëm ci wàllu waxtaan waxtaan wi nag moom daanaka miraaran ay yoon yoon waxtaane nañ ko fi waaye daanaka at mu nekk day gën a am solo gën a saf xorom loolu suñu borom dogal tey nag ñuy wax ci wàllu ket xatmiya bi ak ñi nga xamee ne xat xatmiya bi ak la ci aju yëpp bi nga xamee ne tamit nit yàlla gu baax goo xam ne gi Assane dem mi nga xamee ne directement ngi nii toog ci suñu ndeyjoor di sëriñ Baaxi dem ak oustaz Aliou Ndaw mii nga xam ne itam mi ngi ci sama càmmoñ nga xam ne waxtaan na fi Seydina Cheikh ba tey waaye alaqaat yi nga xam ne doxoon na ci Cheikh Islam si Ibrahima Niass ak kilifa gu sell gii nga xamee ne moo di Cheikh Assane Deme mi nga xamee ne tey moo tax ñuy def kat niye bi ci loolu moo tax ñu dalal fi ñaari jëmm yu sell yi nga xamee ne yàgg nañoo ñëw fii ci 2STV émission bi ñu baree bari di ko seetaan ba ci wàllu bitim réew fa tabaarakallaahu oustaz kon ci loolu fa tabaarakallaahu alkalaamu mahaka nga def euh, muqaddima bi salaam asalaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim mm-hmm. alhamdulilahi alqaayil fi muhkami tanzili mudakkirun mm-hmm. bi ayaamillah وصلي وسلم على الإمام المبعوث رحمة للعالمين مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ñi ngi nuyu ñëpp di beral nuyoo suñu kilifa gi ma toog ci plateau bi di Seydi Moulaye Cheikh Abdoul Baqi Hassan Deme mhm. Oustaz Maodo mi nga xam ne mi ngi liggéey lu rëy ci tool bi mhm. di ndokkeel borom barab bi ak mbooleem ñiy liggéey ci ronam ñaan yàlla yokk leen tawfiix bis bii nag nga xam ne Cheikh Maodo tudd na ko bala ñu cee ñëw dafa am lu ñu lislaam jàngaloon yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ci xadis bu wér ne kullu mawludin yuladu ala al fitrati mu ne képp koo gis mu judd kullu googu dafay jëri istixraax bawul kenn kenn kenn képp ku judd dafa judduwaale ngëm yàlla gu weex tàll perkaal la bu set perkaal booba nag set gi day dem ba ci kanam waa ji ñàkk ko soo toppee xadis bi dana wax ne ñi ko séq di ay wajuram léeg-léeg ñu yóbbu ko ci ak yahudiya nasraaniya majusi ba màgg fitra booba nag nga xam ne daalatul mu'min la dañ koy wëri boo toppee alquran danañu jàngal ay maraaxil yu bëri yuñ mën a wëre weex weex booba nekkoon ci yow boo ko ñàkkee fooy nooy def ba mu ñëwaat ci yow bokk na ci yi mu wax moom alquran pour fitra bi ñëwaat xam ne demam dafa gaaw te mooy leer gi ne ci yow nee na yàlla dafa yónni yónantu yi pour ñu indiwaat fitra bi hmm. yuallimuhum yu wa yuzakkihim yuzakkihim yuallimuhum kon taskiya booba mooy delloosiwaat fitra ba nga ñàkkoon ci ñaari wajur yi la séq wala andoor yi la séq wala bii ba ngay fréquenté bokk na ci liy indi fitra boobu nga xam ne mooy leer gi nit ki judduwaale xam ne tax na liir bañut kenn dawalul dara amul lenn lu muy xëccu loola lañ bëgg ab jullit àgg fa da nga koy judduwaale nag mais da koy ñàkkaat bokk na ci bi nga ko ñàkkee li ko indi mooy jël sa alal joxe ngir yàlla xus min amwaalim sadaqatan tutahirum wa tuzakkiim biha ndeke infaax moom it dana tax nga dabo ji fitra ba nga ñàkkoon waaye point bi ma itteel nag ci yi ko mën a dabu mooy soxbatu yonent bi euh, alayhi salaatu wasalaam maa jalalati qadri qadri wa ulwi makaanatihi inda rabbi subhanahu wa dañ ko wax na ko tegtal ko yoon woo xam ne bu ci jaaree fitra booba dafay des ci moom mm-hmm. yonent su ko yàlla digalee da koy tagg ñun ñoo ko moom mm-hmm. wasbir nafsaka mm-hmm. maa alladina yaduuna rabbahum bilqadaati wal ashiyi yuriduuna wajhahu sabru ci wax yaaram mooy comme nga waroon daaba wala nga ne sa oto mu bëgg saaraan jimi naxanteek moom pour téeku loolu mooy sabru baat bu dis la daf ne ko gaayal sa bopp tënkul ànd ak gaa nga xam ne yàlla dong leen itteel ndeke soxbatu dafay dekkilaat fitra bi jaam bi dundee woon bun booba ne ci la ñuy duggee ci waxtaan wi mhm. Cheikh Maodo dafa am ñaar yoo xam ne alquran da koy boole toujours mooy ilmu ak iman xam ak ngëm ñoom ñaar dañuy yokk dañuy wàññeeku waqu rabbi zidni ilman kon xam-xam day dooleeku li yazdaadu imaanan kon iman day dooleeku ñaar yii nag e, pour mu sax ci jaam bi nga xam ne xam bi ci gën limaama junde dañ ko laaj na ko radiyallahu anhu na ko ndax làmmiñ mën naa ñëw te xol du ñëw mun na ko bari lool gis koo xam ne man def xikaaya mais amul xikmatu man na waxee nu suusi si mais bokkul ci xusuus yi soo waa làmmiñ wee ñëw mais xol bi amul leer mun aka bari bëri mu ne ñu ne ko ndax xol mën naa ñëw te làmmiñ du ñëw mu ne loola mooy muraad bi nit dana fees del leeru yàlla te doo ko fekk mukk muy taabir muy wax daf na patt noppi mais mi ngi fesal ak leer waaye mu ne liñ soxla dëggantaan mooy xalb bu ànd ak lisaan mhm. waa ji laminam tinkiiku mais xolam fesal ak leer loolu mooy nuurun ala nuurin bokk na ci li koy maye mhm. di suuxat ngëm suuxat xam mooy soxbatu soxbat boobu nag góor gu baax koo xam ne oustaz Biram Diop al alimul allaama mhm. Eh, nga xam ne ëttëb xam-xam mën na faa siggi doomi daara yi naw nañ ko ndax xam-xam bu set mhm. ak warawam wax na ci benn tëskiyaam boo xam ne dëgg-dëgg suñ amoon lu gën a foor kayit ci lañ koy bind mhm. saasande mi nga xam ne ci soxbal ànd ak ci la jëriñoo mhm. digganteem ak Cheikh Ibrahim nga xam ne yàlla may na ko xol bu ànd ak làmmiñ fees dell ak wilaayatu waaye tinge ko lool ci làmminam ak ci xalimaam mhm. kàndoom ak Cheikh Ibrahima radiallahu anhuma moo ñu jural bis bii tey sa baram jom e, dafa xam tasawuf doo uti sëriñ mhm. xam nga Cheikh Maodo li yàq circulation bi léegi nit day jënd oto bëgg a jàngee oto ci ci ko tali mhm. dawal tey jàngaale dawal mu ne mu ne Cheikh Hassan Deme radiallahu anhu Oustaz Baram Diop mooy wax mooy dafa xam code ba pare doog a conduire mooy jàng na chariatu mhm. yàlla may ko ci cër bu law nasibul asad waaye yàlla may ko tamit euh, bakkan bi nga xam ne alquran moo ñu jàng ne mhm. fala tu zakku anfusukum ci paar mhm. ak xad aflaha man zakkaha ci beneen paar bëgguñ kuy bakk mais bëgg nañ ku ñu ku ñu defar man zakkaha mooy ku ñuy defar fala du zakku mooy bul bàkku Cheikh radiallahu anhu yàlla may ko bakkan bu sëriñam yar di Cheikh Hasan di Cheikh Ibrahima radiallahu anhu mhm. bi ko yaree ci kàndoo googu nag ci la yàlla jébbile ci moom itte àndoo nit yàlla yi dafa itte mhm. itte juju mu amoon ci biir yàlla xam lool shariatu mhm. xam yonent di ko jàngal ay guddeem ak i bëccëgam di dund sunnaam waaye xam tariqa bi lool ba jigi dayoo nga xam ne oustaz Baram Diop waxoon na ne Seydi Ahmad Sukoyri mag ñam doon dajale nga xam ne dañoo jëriñu ci tariqa bi su fekkee woon si Xasan dana ko boole ci mag ñooñu eh, mooy muy góor goo xam ne àndoom ak ak Cheikh Ibrahima ci la bis bi judd mm-hmm. xam tariqa bi lool xam ay njëriñam mm-hmm. xam li mën a liggéey nga xam ne soxbatu Cheikh Maodo ku ku jëriñu mm-hmm. ci nga jëriñoo maa aflaha man aflaha illa illa bi soxbati man aflaha koo gis mu àgg fa mu doon jëm dafa ànd ak ku fa mu jëm moo na Cheikh Ibrahima radiallahu anhu mu yar ko euh, mu am cër bu law Cheikh Ibrahima teel koo xam ni mu xamee mag ñi nekkoon ci ronam mu wax ci ak xam na ko da nga am cër bu law ci tarixa tijaan cër bu law boobu nag la yàlla lawale ba feeñale ci guddikat mii gi nga xam ne may gu rëy may la goo xam ne damay wax toujours su fekkee noonu kat mi yetu cuuraay la Cheikh na dem radiallahu anhu mooy safara si génne xet gi ci jamonom jàngale na ko yaatal na ko jàngale na tariqa bi hmm. guddi googu na ci lañ jëm ma doon ubbil nag Cheikh Abdoul Baaxi e, kaddu mu mën a dugg hmm. ci lu solo loolu lañ jëm ba kaddu gi ñëwaat ci ñun incha allah incha allah euh, sëriñ bismillah eh, imam kon jàpp naa ne Cheikh Hassan Deme kat mi bi mën nañoo jàpp ne am na ci ndigal ndax taxawaayam diggante ba seen Islaam si Ibrahima Niass wala nga xam ne baatin la bu ko yàlla wala xërëm ci Sina Cheikh rek moo tax mu. Mm. waaw alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di um, di la nuyu. yow Oustaz Maodo yow mu ñu dawal dalal fii ci émission bu am solo bi di yoon bi. Mm-hmm. di daara ji. nuyu tamit kër gi ak ñu fiy liggéey lépp ak borom kër gi di 2S. nga xam ne il faut suñuy ñaan. ñu commencé ko ñaanal leen yàlla yokk leen ci zaahir ci baatin amiin ndax tamit kat mi fu mu mën a toll tamit 2S daf ci joué joué boo xam ne rôle bu am solo la ci at yi passé ñu la ciy gërëm bu baax a baax maa ngi nuyu tamit mboolem ñi nga xam ne ñooy seetaan euh, émission bi ci Sénégal ak ci biti Sénégal ñaanal ñëpp dégg nga de jàmm ak tawfiq nuyu oustaz Aliou Ndao borom xam-xam al allaama nga xam ne buñ sañoon bàyyee ko kàddu gi mu continuer di jàngale jàngaleem yu set yu leer yi nga xam ne nit ñi mën nañ cee jëriñu mm-hmm. euh, Katmiya comme nu nga ko laajee léegi Cheikh Hassan Deme radiallahu anhu bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko dundalaat mm-hmm. ndax euh, ci jamono ñoom Seydi Arab ibn Saalih radiallahu anhu mm-hmm. ci jamono Seydi euh, Abdallahi Cheikh Abdallahi radiallahu anhu nga xam ne ñooñu ci kàngam yi tariqa bi leen bokk. Mhm. jamono jooju mag ñi am na ñu doon feetoo katmiya mhm. ca fas mhm. ba nga xam ne sax ba affaire bi commencé am doole ku mel ne arab bin Saalih radiallahu anhu ak Seydi Abul Qasim xam ne ay kàngami tariqa bi leen ay ñoom kon suuf bindoon nañ ci leetar di ci doon di ko doon tere taalibe yi ngir. ne boobu xeex song gi ñu songu tarixa bi dafa bari te masaay li ñu war a taxrir dafa bëri boo ci buggee boolee loo xam ne daanaka ngëm-ngëm rek moo ci mën a àggale àggale nit waaye duut loo mën a détaillé ba nga xam ne nit ki mën na koo jàpp te su boobaa occasion la ci munkiruuna yu weddikat yi ñu jël ko di weddi tarixa bi moo taxoon ñu tere ko hmm. waaye même Seyd Ahmed Abdoulaye moom taxawoon na ne duñ ko di ko di ko dëgëral ne leen continuer di def katmiya bindoon na ci lettre di ci ñaax taalibe yi ne Seydi Ali ci boobu moom moo wax ci mashahid ne bu ko tijaani xamoon di leen ko jàpp muy feet mhm. euh, gannaaw loolu nag Cheikh Hassan Deme radiallahu anhu fii ci Sénégal euh, ku ko ko gënoon a fësal ci méthode bi ñu koy defee waxtu wi nii ñun de xamuñ ko bu fekkoon ne am na mhm. loolu nag dafay fësal cër bi nga xam ne yàlla may na ko ci tariqa bi mooy li nga laaj léegi oustaz daane ci ndax bàyyi bindoon na ko leetar na ko sayakunu laka sha'nun azimun fi tariqati al ahmadiyati al muhammadiyati yàlla dina la may cër bu réerée réy yow si xasan dem ci tariqa bii na nag ci cër yooyu noonu mooy leela katmiya bokk na ci cer yooyu tamit lim dugal ci tariqa bi kenn xamul nu mu toll voyage am bu mujj bi nga xam ne rek dem na ko Nigéria 86 ñaar fukki junne ak ñeent ak lu teg ñoo dugg ci tarixa bi ci loxoom. waaw vidéo yi sax xale yi ñu ngi koy commencé di ko tasaare te moom buy joxe tarixa bi daf koy dafay jël temps waxtaan ci ngëneeli tarixa bi xemem loola dégg nga ci li ngay dugg lan la ak importance bi nga xam ne moom la am jox la ko lu mbooloo mu bëri bëri dafay téye loxoom di saafwante ku nekk na la jox naa la tarixa tijaan jox naa la tarixa tijaan ba sax ci duwaalaa nga xam ne ñaari junne nit ñoo dugg ci tarixa bi ci tukkee moomu dafay joxe tariqa bi rek loxoom bi sem mu ne yow sama loxo seetaane moo la bugg a jàpp ba tariqa tijaani gii may joxe duma ko mën a continuer waaye na nga toskare nga xam ne dara mënta dox sama diggante ak joxe tariqa tijaani <coughs> mu ne yëgu rek lu may loxo bi bàyyeeku ba bàyyi ci saa si <laughs> kon kooku sëriñam bu mag boobu nga xam ne moom la àndaloon di Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu te ku nekk xam ne ne waaris bu mag la ci hmm. Mawlana Sir Ahmed Tidiane radiallahu anhu joué rôle bu rëy rëy rëy ci tasaare tariqa Tidiane fii ci Sénégal ak ci biti Sénégal hmm. Cheikh Ibrahima Niass moomu ku àndoog moom mu ne la yàlla dina feeñal ci sa loxo mbir mu màgg a ci tariqa Tidiane yi hmm. nga génn ngay commencé katmiya génn àddina loolu di tasaaroo wax dëgg yàlla loolu sant yàlla la ak dëggal euh, firaasa bi nga xam ne mooy kashfu bi sëriñam ci moom ba wax li nga xam ne moom la wax ci ci ci ci ci ci anamam moom Cheikh Cheikh Hassan Deb radiyallaahu moo tax nag léeg-léeg kat gi moom daf ko daan màggal te bu ko daan màggal dina daan def muqaddima boo xam ne pour leeral ne góori tariqa bi kat am na ñoo xam ne tere woon nañ ko waaye li taxoon ñu tere ko mooy boobu dañoo nekkoon ci jamono ci yeneen masala yoo xam ne moo gën ëppoon importance pour ñu jëm koo tontu gën koo leeralal ba taalibe yi xam ci li gën a nekk lan la waaye léegi nag mun a tarixa tijaan yi tasaaroo na te tamit laaj na ñu am occasion yoo xam ne tamit dinañ ko euh, mën a gën di fësalee dégg nga tarixa bi ak gën koo jàngale jël nag bés boo xam ne yàlla may na ci Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu may boo xam ne may bu rëy la muy dégg nga alkatmiya di maqaama boo xam ne ku dul yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa xamuloo ko bës bi mu ko yéeg bës bu mu yéeg ci maqaama boobu noonu di guddi juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñett ci safar moom da ko daan jël def ko occasion boo xam ne njàngal ak tarixa bi la di ci sardu di ci tasaare siira Mawlana Seydi Ahmad Tijaani radiyallaahu anhu waaye tamit jàngale ci fiqhu tarixa bi ak rijaalu tarixa bi ñun ñi mokkal nañ lu bëri ci dundu Cheikh Tidiane te boobu ñu ngi nekk xale ci njàngaleem yooyu noonu ci leen ko mokkalee kon loolu euh, wax dëgg yàlla bu bës boobu jëm buñ jëmee ci bés boobu noonu te tey Sénégal ñu bari di ko def loolu dañuy sant yàlla ñaanal yàlla góor gu mag googu di Mawlana Cheikh Hassan Deme radiyallahu anhu yàlla yokku leeram te yàlla gën a dëgëral dëgëral tarixa bi moom nag nekkoon na koo xam ne mën ngaa wax ne tijaaniyatu buy dox la ci kaw suuf bépp jikko joo xam ne rot na ci ne Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane noonu la meloon sëriñam bi ko yar di Mawlana Cheikh Ibrahima Niass meloon noonu mm-hmm. da koy gis ci Mawlana Cheikh Hassan Deme ci bëgg yàlla ga ak ci daw jëm ci yàlla tabaaraka wa taala ittewoo yàlla ci guddeem ak ci bëccëgam ba nga xam ne ay détails sax da nga talu koo woon. Hmm. coow li nga gis ci réew mi fii nii mu bëri li ko waral lépp moom mooy ne ñi ñi dañoo fàtte yàlla. waaw bëgg àddina moo indi coow li waaye boo jëmee ci yàlla yow mbiri àddina sa yoon newu ci. Hmm. te seet na Cheikh radiyallahu anhu euh, loolu daan digal taalibe boo jàng jawaaril maani toujours dafay wax taalibe yi ne li ma la ñuy digal mooy na ngeen di. daw jëm ci yàlla tabaaraka taala daw leen jëm ci yàlla daw ci jëm jëm ci yàlla mooy indi fitratu boobu nga xam ne moom la Seyd Ali Ndaw wax nga xam ne moom nga juddoo woon mu réer la nga war koo dem uti ji ay problème nekk sa kanam te moom mooy bëgg àddina ak te boo bëggee àddina kañaan ñëw na dégg nga da xiis ñëw na bëgg sa bopp kese kese kese dégg nga ñëw na yooyu yëpp feebar la yoo xam ne sufiyanke yi moom la saafara mm-hmm. ci bakkan nit ba nga xam ne nit ki xol bi dina ko lewu jëm ci yàlla tabaraka fa firru ila allah daw leen jëm ci yàlla tabaraka wa taala cheikh loolu la daan digle moo tax sax ku waan naan ko ay am na ku ma xas ak ku ma wax nangam li mu lay digal def naan la muñal te nga daw jëm ci yàlla ndax mbindeefi yàlla yi sooy xool seen jëf yi ne dogali yàlla la tabaraka wa taala doo mer ci seen jëf yi <laughs> waaye boo boo gisee ne ñoom ñoo ko def rek subaa yow fàtte nga yàlla te daf lay indil ay mer daf lay indil ay problème <laughs> Cheikh Hassane Dème nag Euh, jikku jooju jikku tijaan yetu googu moom la incarné woon. ba nga xam ne doo ko dégg mukk mu wax loo xam ne yoonam newu ci. et boo ko gisee rek yaa ngi koy gis ci la gën a itteel ndax li koy may nit mooy nit ko bari lu muy zikkar. Mhm. tariqa bi tariqu zikr la. Mhm. tudd yàlla tabaaraka wa taala. Cheikh Tidiane dafa waxoon na ngeen bëri lu ngeen a tudd yàlla tabaaraka wa taala. Mhm. ndax nooy gën a bëree tudd di tudd yàlla noonu ngay dawee euh, euh, xuri seetaan yi. seetaan du am ci yow dégg nga de wàll. waaye heure boo soree yàlla rek. su bëriwoo looy tudd yàlla su boobaa ci ay détails ngay nekk ci biir mm-hmm. seytaane ngay nekk mm-hmm. te euh, Cheikh Hassan dem ku mel noonu nag nga xam ne tariqa bi moo ko moo ko mooñ moo ko defar wax ci euh, melokaanam yooyu noonu am na solo ndax dañoo soxla ay repères yoo xam ne dañ ciy dellu ndax suñu réew mi fi nekk nii dafa jaxasoo mm-hmm. waaw dafa jaxasoo ci bor bu nekk ngay gis koo xam ne lu ko neex lay wax xam nga léegi bëgg àdduna bi léegi la gën a bëri fan yi sax maa ngi gis benn taqrir boo xam ne BBC mu ngi ko def ci ne réseaux sociaux yi dafa indi nit ñi saxsiyaatu narjisiya mhm. nga xamul mooy les narjis ñi nga xam ne dañu bëgg seen bopp ba ëpp mhm. bëgg a feeñ mhm. dafa bëri léegi feebar boo xam ne la mu ngi commencé dal nit ñi waaw kay léegi nag loolu lu indi moom mooy ne ñuy wax sax ne ñu ngi Facebook ci boppam mu ngi xalaat pour nu ñuy effacer nombre de vie yi parce que nit kii bu fekkee dafa def sorti mu ngi xool ñaata ñoo ko seetaan. Mm-hmm. Mm-hmm. nu mu gën a bëree loolu daf koy gën a daf koy gën a mm-hmm. moo tax nga gis benn problème bu ñëwee ku xamul dara dina ca wax. ba parce que te nangam nangam pour jéem a jéem a feeñ. defar jikko ngay gis sax nit dina dem di simmeeku. pour bugg a bugg a feeñ. kon feebar boo xam ne la xew na ci jamono jii nii muy jamono joo xam ne euh, jamono ju doy war la muy jamono réseaux sociaux yi nii kon moo tax nag am ci. mag mu mel nii Cheikh Xasan Dem radiyallahu anhu nga xam ne tariqa bi moo ko defar ak ñeneen ak ñeneen ndax dañoo jëm ci bésam moo tax ñu koy tudd ndax ku baax boo ko tuddee rek tudd nga ku baaxi dégg nga de ku baaxi ku nekk ndax mbaax benn rek la waaw tariqa bi góor yu mu defar boo demee Tiwaawoon góor yu mel noonu nga fay fekk góor yu mu defar boo demee dégg nga de Medina Baye ñoom nga fay fekk góor yu mu defar boo demee ca Nigeria foo mën a dem tamit ñoom nga fay ñoom nga ñoom nga fay fekk kon jikko ji moom mooy moom mooy moom mooy jikko ji rek moo tax nag moom euh, radiallahu anhu ni nga xam ne noonu la labee woon ci yàlla di yare ci ne na ngeen xam seen bopp te xam sa bopp moom mooy nga daw jëm ci yàlla tabaaraka wa taala soo xamee soo xamee yàlla hmm. soo hóoloo yàlla soo euh, bëree looy tudd yàlla tabaaraka wa taala détails yu bëri yow doo ci doo ci hmm. nekk duñ la ci dégg ba ngay nekk di xas xasteek hmm. wala ngay wax loo xam ne waroo koo waroo waroo ko wax man daf ñu daan wax nañu bala ngeen a àddu nangeen xam lu ngeen di wax xam fu ngeen di waxee xam dégg de ñu ngeen di waxat mhm. xam nga wax jooju lu am solo la mhm. boo xamee li ngay wax d'abord da lay leer ndax Cheikh Tidiane moo daan jàngale loolu boo demee dañ naan wax naan Cheikh Tidiane dafa nekkoon nit koo xam ne lu nekk rek daf cee buggu dégg nga maa gëstu ko gëstu boo xam ne gëstu bu sew la mhm. ba taxaw ci xaqiqa waaw mooy ne lépp looy wax na la leer nañ bala ngaa àddu xam tamit dégg nga de public bi ngay wax ak ñan la waaye dégg xam fooy waxee fan loolu nag yaakaar naa ne kuy utiliser léegi Facebook wala yeneen kii yeneen réseaux sociaux yi war ngaa jàngat loolu. looy wax xam looy wax. xam ñooy wax ak xam fu ngay waxee. dégg nga de fan la su boobaa rek di nga gis ne rek euh, euh, lay addu jëme jugee ko ci yow dina nekk loo xam ne luy jëriñ nit ñi la waaye du nekk loo xam ne luy luy la. waaw baaxi dem wax dafa delluwaat rek alaa bi zikrillahi tatma inal parce que euh, mutasawwifuuna yi dañuy defar sa xol defar sa jikko mel sa Xasan ba noppi itam jege ji Seydina Cheikh Ahmada Tidiane te Seydina Cheikh yi doon xëcc jëmale ci euh, xanaa rek fa siiroo ila ilallahi wala boog ila maxfiratin yéen a xam aw loolu ñaar benn fa tabarakallah sax euh, Cheikh Mahdou jokk ci waxi Cheikh Abdoul Baaxi bi mhm. dafa dafa aajowoo taxaw seetlu bu baax mhm. benn mooy uutiitu jawaami alkali bi mhm. ci waxe olof mooy jox nañ ma lu ndar kepp wax yi mhm. muy wax benn baat mu ëmb lu bëree bëri loolu mooy jawaami al kalimi waaye dañu déggee ci baatu jaame nit bu nekkee waaris Muhammad yi toujours day wax luy boole jaam bi ak boroomam. boo xam day nekk jaame day wax lu boole jaam bi ak i moroomam day wax loo xam ne waxtu wu nekk nit ñi dañuy gën a óolu onti bëggante jegante bokk na ci mandraga wirasa muhammadiya sa wax dafay nekk jaame mhm. ni mu amee woon wax yu riche muy jawaami al kalim mhm. la waxoon ne innama bu'istu li utammima makaarima al axlaaqi mhm. comme nag dafa wax jawaami al kalim eh, wax yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa riche waxtu bu nekk dafay jébb ay dégg yu bees mhm. bi muy waxee ne li kulli daa in mhm. jàngoro bu nekk am na saafara mhm. su nga boo gisee xusuum yi bëri ci wàllu tasawuf li amutoon li amutoon wax nañ dëgg am na yu amutoon mais tamit am na lu amutoon bi nga xamee ne Seydina Abubakar rëy sonalu ko Seydina Ousmane ci misaal nay sonalu ko Seydina Ali yàkkamte sonalu ko Seydina Ousmane xemem sonalu ko ak rasaayul axlaaq yëpp amu amuñ problème yooyu booba médicament yi juddoogut ndax feebar yi juddoogut mhm. waaye Cheikh Maodo bi ñu demee ba feebar yi bëri léegi médecine gën na développé ni meloon bu njëkk mhm. am na fu médecine àgg li ko fa mooy dafa am jàngoro yu juddu bees mhm. ni amee nag ci tibbul abdaani moom na ba tey ci tibbul arwaax bi nee ba rëy fees dell ci xol yi xeeb jaamu yàlla yi bàkku yàkkamti xiir yooyu fees moo tax su fenkee ñoom it il faut ñoom ay médicament yu bees mm-hmm. ay faj yu bees lii moo waral ta tasawuf waxtu wu nekk mi ngi ñii ñu yare yare ko wéet wéetal ko kii ñu waral ko noppiloo ko kii ñu yare ko sigarloo ko lii kat moo tax ma ne la mën ma ne na utiitu jawaami alkalim moo tax fokk waxtu bu nekk rek dafa am lu ñu si xasante mii nag si Abdul Baaxi doon junj radiallahu anhu ñu xam ne meññat la ci garab ak Cheikh Ibrahima euh, yàlla da ko may tawfiq ci lu bari Cheikh Mado nit mën na am jawaami alkalim te du am makaarimul axlaq waaw nit mën na wax ba penc mi fees fekk jikkoom baaxul. Mhm. moom na yàlla da ko dimbal mu nekk waaris Muhammad yi sëriñam yaxaral ko ko te waxewu ko ci bànneexu ba kanam na ko waaris Muhammad yi nga e, jikko def ci marqué woon jamonoom waxuma sax Cheikh Maodo xam-xam bi ko yàlla mayoon mhm. li ma gën a yéem ci moom Cheikh Assane Deme mooy tawaadoo mhm. ku ne mën na ko jëriñoo jàng nañ ci séeréer yonent mës a ken toog nag maggan ñi gone yi ñi xam ñi xamut ku ne daana toog ak yow mhm. ceerno la borom mawaahib tagee woon yun salaa sallam ne barzun la yelihi baabun mhm. muy téere siira bu yàgg mag ñi moo nekkoon seen maqaamaatul xariiri yi bu njëkk mhm. mi mel yoon def ne ko barzun la yelihi baabun heure boo ko soxlaa ñëw gis ko yàlla bi ñu bëggee jëriñ tudd Naafi' mhm. daf ñoo jege mhm. Cerno xalifa la ci xalifaam yi moo tax mu jege woon njaboot gi lool dañ daa julli ba pare nga dégg mun hal min saa'ilin kuy laaj mhm. te fànn ku ne laaj nañ ko ko fànn ku nekk laaj nañ ko ko euh, kon nag muy jëmm joo xam ne dëgg-dëgg ci école Mawlana Cheikh Ibrahima ci la génne Cheikh Maodo doomu aadama yàlla da ko daf ko teral comme ni sëriñ bi wax léegi wax na dëgg jamono lëj na min bari bari na waxkat yi bari nañ mais la benn bindkat waxoon ne jamono bi la am léegi mooy nit koo xam ne yahzi bi daal wala yahdi wax ji mën naa bari mais ñu ci moom luñ bari léegi ku jug am ko topp sa gannaaw soo bëggee atte nag tasawuf li ci mbedd mi da juum hmm. da ngay dem ci zaawiye yi hmm. gis niñ produire gis niñ bind gis ña dëkkee jàng alquran dëkkee jooy ngir yàlla hmm. di joxe xam-xam ngir yàlla di liggéey ngir yàlla liñ am lépp ñu jox ko jox ko yàlla booy xool tasawuf da ngay xool ñooña mag ñi produire mais bul dem ci mbedd mi di fa àtte tasawuf kon da ngay juum may wax toujours ci daara ji mais ne doomu aadama yàlla da ko fooral ba nga xam ne képp kum topp lenn rek mooy njëg gi mooy nga jox ko yàlla nit bu toppee moroomu nitam te am na cosaan kitaaban wa sunnatan hal attabiuka ab yonent moo ko waxoon ab waliyu ndax du ma la topp yonent yàlla Moussa bokk ci ulul azmi mina rusul nekk muñkat xadir na ko innaka lan tastatia maaya sabran te moom bokk na ñu wax na wasbir kama sabaru ulul azmi yàlla ne ko mën naa muñ xadar na ko mënoo maa muñal kon seen xam doy na waar kon kon moo tax ma ne Cheikh Maodo booy topp mhm. euh, du ñëpp ay sëriñ lañ mhm. waaye di nekku tamit na sëriñ amut boo demee ci laxdari téere bu njëkk ci mazhab Malik mhm. soo demee bay julli bañ ko romb sa gannaaw xadis nim ko waxee tëkku yi ci indi dañuy jàngale saatir da ngay déglu liñ ci jàngale toujours dama wax xale man leen loolu darso boo xam ne war na ku jug am itti ànd ak nitu yàlla nga roy wax jooja nee na bant bi ngay samp sa kanam pour julli te bant bi jaayante ak moom yow yàlla ngay jullil mais comme dox na sa digganteeg penku bi rek l'islam da koy da koy joxe na ko am na noo war a mel yow bant ñu ne na dëgër ni na dëgër ni xeej muy benn na gudd ni xasab na laab na sax bu mu la jax-jaxal simple bant pour nga teg ko sa kanam ñu ne namel nii kon boo jëlee nit teg ko sa kanam te am na cosaan wasila moo nekk Maodo kat mi gërëm Cheikh Maodo yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wabtaqu ilayhi alwasilata keneen mooy Maodo bi dama wax toujours na jànkat yi nañu bàyyi xel laaya wabtaqu ilayhi la njëkk a wax indi al wasilata mm-hmm. mag ñi yàlla lañ soxla ñi leen topp te topp guy wér yàlla lañ soxla waxul wabtaqul wasilata ilay ilayhi la njëkk a jëfandikoo mm-hmm. Cheikh Ibrahima mi wax yonantu daf ne ko ilayka wa ilaa farakaay bu lam tasir mm-hmm. su mën a bërit mag ñi ma ànd ak yaa ma aw ma soxla ci dara ma soxla ci kenn ilayka wa ilaa farakaay bu lam tasir kon Cheikh Maodo incha allah guddi googu nañu jëm di guddi jàngale la lan mooy wasiila. mooy mercredi. mooy mercredi bii ñëw. Medina Baye la. buñ kër si Xasan dem ay jahaabisatul ulama ñoo ko seq. wala rasihim eh, Cheikh Mawdul Amin Ibrahim Niass. Cheikh Baba Lamine miñ miin. am na ay asadis yu mag yoo xam ne ngoon nga danañu fa kat mi yë guddi xam-xam la bëccëg bi xam-xam la guddi gi xam-xam la sëriñ bi dana ci ñëw ala kulli xaalin muy bis boo xam ne bisu màgg la bisu leer la mhm. kon wa zakkirum bi ayaami la mhm. su fekkee fan yàlla yi la ñuy fàttaliku dëgg dëgg ne góor yàlla yi war nañ leen mën a fàttaliku buñ ko sukkandikoo ci laaj yi euh, Chadul Baaxi tabaarakala Chadul Baaxi kon bis boobu àllarba lay doon dañoo bëggoon nga dugal nit leen nu muy tëddee après ñu doog a def kitaab waaw euh, incha allah àllarba lay doon le 16 comme ni ko oustaz waxee la mooy le 16 waaw waaw ñu koy sant bu baax a baax ci ifadaat yi mhm. euh, le 16 octobre incha allah tàmbale woon nañ bu yàgg nag jàng salaatul fatihi mm-hmm. ak euh, alquranul karim mm-hmm. ngir na tariqa bi tariqa alquran la ndax Cheikh Tidiane yi wax na ne taalibe bi boo xam ne mën naa jàng alquran lu néew lu néew loo xam ne war nga koo jàng ci bés ci alquran la nekk ñaari hizib mm-hmm. ba léegi boo demee Faas bu ñu jullee fajar ñaari hizib yooyu dañ koy jàng te ci mokkal lañ koy jàngee kon moo tax nag euh, ñu ngi jàng alquran partout ci daara yëpp ngir ñaan jàmm ci réew mi gannaaw bu ñu ko addilaale Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane yi mm-hmm. uh, waaye incha allah ca bés ba leen jëm bés bi ren at bu jot dañuy seet kuñ ko tuddee mm-hmm. ci mag ñi magi tarixa bi mm-hmm. ren ñu tànn mam Abdou Niang radiyallahu anhu doomi Mamadou Boucar te nekkoon kenn ci xalifaay Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu nekkoon ku doyoon waar kooku moom lañ ko tuddee mu ngi koy euh, ñu ngi nuyu seen xalifa ba Ahmadou Boucar ñaa ngi ak mboolem waa Taïba Niaguène hmm. euh, bés bi comme ni ko oustaz waxee bés yi xam-xam la hmm. ba même buñ ne suba la sax am na fa programme yoo xam ne taalibe yi jàngee ci daara ji nekk ci daaraay kër Cerno yi hmm. ñoo fay dajee di waxtaan ci tariqa bi ak soloy tariqa bi buñ xëyee dinañ continuer jàng alquran yi ba boori deux heures incha allah. di ñuy dem xewlu ji bu 4 heures jotee fa la waxtaan yi dégg nga di tàmbalee alfadilatu oustaz Ali Ndaw mi dina fa waxtaan ci laaya jëm tudd léegi mhm. yaayu da dinaa wo taqulaa wabtagu ilayhi alwasilata mhm. moom moo dina ci def waxtaan ko bir ni Cheikh euh, Baye Mamoun dina fa def waxtaan mhm. ñu soo a dugg ci cérémonie officielle bi ci njiital suñu xalifa Cheikh Mouhamadul Kabir euh, gouverneur de la région bi dina dina ñëw ànd ak préfet waaye tamit ak délégation bi euh, buñ pare di leen euh, xatmul quran boo xam ne imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé moo ko daan faral di def at bu jot moom it incha allah moom mooy teew def ko. ci teewaayi Cheikh Umar. bi nga xam ne sëti Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu la sëti Cheikh Ibrahima la. Euh, foofu la ñuy yëkkatee jotaay yi ngoon gi jëm ci jotaay guddi gi nga xam ne nag ñëpp moom la ñuy xaar. Mhm. ak alimul allaama mhm. ku baax ku tedd wali yàlla bu mag. bi Cheikh Baba Lamine miñ xam ci bëgg yàlla ga ci jeex ci yàlla tabaaraka taala moom mooy dundal dégg guddi gi njëkk muy agsi jarbaatam Cheikh Ahmed Boucar Niang dina waxtaan ci maam El Hadj Abdoulaye Niass ak relation yi mu amoon ak mag ñu baax ñi ci réew mi ak ci bitim bitim réew bu soobee yàlla am na fa beneen waxtaan wu ñuy jël kenn ci saxaaba Cheikh Tidiane yi muy Mouhamadou Mouhamadou Damrawi euh, boobu jàmbu xewul bi moo ci moo ci moo ciy def tatarruk incha allah. incha allah cheikh bi ñu teeru nag cheikh Baba Lamine mu dundal guddi gi ba euh, fajar jot. guddi gi noonu lay noonu lay tëddee. guddi gi yëpp nag guddi xam-xam la rek. Mm-hmm. waaw fàttaliku xéewalu yàlla yi fàttaliku fan yàlla yi fàttaliku góor yàlla yi. Mm-hmm. ngir ñu mën a roy ci ñoom rek. mooy li nga xam ne moom solo surtout nag Mawlana Cheikh Mati Diagne radiyallahu taala nga xam ne yarinam dafa kawe duur lu may yarini yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw koo xam ne dafa ne bu ngeen déggee ci man ne maa wax lii am ngeen liberté xool leen ko su dëppeeg sunna jël leen su ah, utee sunna jël benn taalibeem bu ñëw Mouhamad euh, ibnu Souleymane al-Mannaa'i hmm. ku ku dëgëroon la ci fiq ak ci diine hmm. waaw gëmoon sunna lool hmm. bés Cheikh Tidiane daf ko wax na ko loo xam ci man mu ne ko lépp loo xam ne gis naa nga def ko su dëppee ak sunna danaa ko def waaye bu dëppoo sunna na moom damay bàyyi. am na waaw seex na ko kon boobu dégg nga jàppal. waaye bul àtte ci njort. Mhm. na nga gëstu ba mu leer ne lii dëppoo na ak sunna lii dëppoo ak sunna kon tariqa bu toll noonu. ku mel ni moo Mawlana Cheikh Ma Tidiane école am bu kawe boobu. wax dëgg yàlla di ko jàngale bët bu set dafa doon loo xam ne lu war la ndax duur rek lu may mooy école yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ca melokaan ya dégg ak ci jikko ya incha allah may tëjee rek benn mm-hmm. euh, wax joo xam ne moom moo ñu ko dénk muy xadis yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. moom Cheikh Tidiane yi mm-hmm. ñu koy fàttaliku ci surtout dañ koy jëriñoo ci jamono ji nii mag ñi ci loolu leen nekkoon mu ne li nga xam ne moom laa la ñuy dénk yéen taalibe yi mooy xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko sàmm comme ni nga xamee ne war na ci man man ma sàmm ko ndax yonent bi dafa wax ne zalaazun munjiyaatun wa zalaazun muhlikaatun ñett yii dina muccal nit ñett yii tamit dina xalak nit dina sànq nit mu ne ñett yi nga xam ne ñooy muccal nit bu ci njëkk ba moom mooy ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbbu d'accord bu ñaareel ba Cheikh Tidiane nee na mooy euh, nga wax dëgg soo gërëmee soo meree tamit nga wax dëgg rek waaw nga wax dëgg soo gërëmee <laughs> ak soo meree waaw bu ñu waxee loo xam ne sa bakkan da cay nekk yow wax ci la cay dëgg. képp bu ñu la waxee loo xam ne daf la mer loo tamit wax ca dëgg. képp xam nga loolu loolu loolu loolu lu am solo la. pour ñu jàng ko. dégg nga ci ci ci ci ci ci jamono jii nii. waaw jërëjëf mel ni waxtu bi dafa jeex. waaw waaw waxtu bi dafa jeex heureusement que lépp duggaale na ci biir. waaw waaw communiqué beeg mm-hmm. waxtaan beeg yëpp. oustaz maa ngi lay sant bu baax a baax ci ci taxaliqaat yi nga def maanaam xellu gi nga def ci yenn ayaat yi ak daanaka sax dugg na sax ci thème bi ndax am na solo lool oustaz ñu ngi lay sant bu baax a baax tam di la gërëm hmm. di ñaan tam bis boobu àllarba la ma baamtuwaat ko hmm. ji nga xam ne moom la ñuy dëgmal tolloo fukki fan ak juróom benn hmm. ci weer wi ci Kaolack. Medina Baye ci biir Medina Baye lañ koy defee. buntu kër Cheikh Hassan Deme waaw ah, kon nag moom ci résidence ba. waaw buntu kër Cheikh mhm. ñu defee ko fa nañ ko fa daan defee at nekk ci sa kilifteef ak itam. waa kër Baye suñ kilifteef suñ mag Cheikh Mouhamadul Kabir. Mouhamadul Kabir mooy xalifa bi moom moo koy jiite ñun ay jëwri <laughs> ne la kon nag moom la ñuy liggéeyal waaw. <laughs> tabaarkalla yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Oustaz jërëjëf. jërëjëf kontaan naa trop jërëjëf jërëjëf macha allah. jërëjëf Cheikh Maodo Oustaz amuloo morom. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا